Eh, man nag dafa am dafa am wax dafa am wax yu am maanaa am wax yu amul maanaa dafa am wax yu jar a tontu am wax yu jar jar a tontu. ah les gars gars yi gars yi ils n'ont pas de. léegi non non euh, mais c'est bien c'est tant mieux. am na ko toog mu ne bu élection jotee gars yi dañuy positionné boo amul base il faut que tu te fasses. may mu na may mu na. Maymuna man maa ëpp base. man maa ëpp base. ah bon waaw. comment ça yaa ëpp base man maa ëpp base. explique toi. Euh, maa ëpp base euh, parce que comme ni nga ko waxee bëri na ay opposants yuy dem defi émission bëri na opposants yuy dem defi émission néew na ay opposants même ay candidats à la présidentielle yow da fi invité. kan nga ci gis bu waxee ba pare nga gis ëllëg sa vingt personne vingt vingt journaux relayé ko ñu di ci wax weer koo ci gis jox ma exemple ma nekkuma fi France laa nekk donc euh, yàlla may na ma te mooy sama nattu yi tamit nangu naa <laughs> bu ma waxee nit ñi débat nit ñi discuter journaux yi relayé ko ñi kuppati ñi daggate nit ñi di wax maintenant parce que doo wax mukk ci neen saa yooyu wax am na loo togg ci ginnaaw gars yi loolu lañ jàpp maintenant moi j'ai au fait dama commencé wax ne que benn candidat laa am